Bonjour. Je m'en faire la lecture du communiqué numéro 324 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce mardi 19 janvier 2021. Le ministère la Santé et l'Action sociale a les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1443 tests réalisés, 168 sont revenus positifs, soit un de positivité de 11,64%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 54 cas contacts par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 114 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. dans la commune de Kaola, 9 à Louga, 8 à Touba, 5 à Richard Toll et à Thiès, 4 à Dakar Plateau et à Matam, à Dieuppeul, Mbour, Mermoz, Nioro, Ouakam, Rufisque et 2 à Diourbel Fatick Kanel Liberté 5 Mbao Ndofane Nord Foire Ouest Foire Point E Tivaouane et Tivaouane Peulh 1 à Amitié Castor Cité Batrin Dagana Derklé Diofior Gueule HLM HLM Grand Yoff Kër Massar Kolda Linguère Mamel Mariste Médina Ngor Waguñaay Oussouye Parcelles Assainies Podor Saint-Louis Sangalkam Sokone Thilogne et Yeumbeul patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris 47 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 10 décès ont été enregistrés ce lundi 18 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé À ce jour, 23 392 cas ont été déclarés 19 531 guéris, 536 décédés, donc 3 324 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, tout en leur faisant les recommandations du jour. Prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils de ce matin. Accès autour du port correct de masque. Un masque doit être bien ajusté, couvrant la bouche et le nez. Lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains. également s'adresser de manière précoce en cas de maladie au personnel de santé qualifié ou se rendre au niveau de la structure sanitaire la plus proche. Enfin, les malades suivis à domicile doivent également respecter les mesures barrières afin de ne pas disséminer la maladie dans leur entourage. Je vous remercie de votre attention. salaamaaleykum mbokk yi ma jottali leen communiqué bi bàyyeekoo ministère de la santé et de l'action sociale tey bésu talaata fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier mi nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen birologique yi may waajalim ci junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñett test yi ñu def téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif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 Touba am ci juróom-ñett juróom ci Richard Toll ak Thiès ñeent ci Dakar Plateau ak Matam ñett ci Jëppal Mbour Mermoz Nioro Wokam Rufisque ak Yoff ñaar ci Diourbel Fatick Kanel Liberté 5 Mbao Nord Foire Ouest Foire Point E Tivaouane ak Tivaouane Peulh benn ci amitié 1 ci Castor Cité Batrin Dagana Derklé Diofior Gueule Tapée HLM HLM Grand Yoff Keur Kolda Linguère Mamel Mariste Médina Ngor Waguñaay Oussouye Parcelles Assainies Podor Saint-Louis Sangalkam Sokone Thilogne ak yëmbal téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ci malade yu entré woon hôpital wér nañu bës nikki ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde ñeent fukk ak juróom-ñaari malade ñoo nekk réanimation fukki malade ñàkk seen bakkan bësu démb altine fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ci kaa njëkk ba Sénégal wëññi na ñaar fukki junni ak ñett ak ñett téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom-ñeent ak juróomi téeméer ak fanweer ak benn wér nañ ci juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana te ñaanal ñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tànn ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmante ak digle yi muy fàttali bos bu nekk di leen wax nangeen ngeen aar seen bopp aar seeni njaboot aarale askan wi ji bàyyi xel ci mbir yi di sol seeni masque ni mu waree masque dafa war a muur gémmiñ ak bakkan di raxas seeni loxo ak ndox ak saabu wala di jëfandikoo gel yu ànd ak qualité di teel a dem dispensaire wala hôpital bu leen jege bu fekkee ne da ngeen a yaram bi dafa xaw a sutante malade ñi nga xam ne tamit dañoo ànd ak feebar bi te ñu bàyyi leen ci biir kër yi nañu góor góorlu ci digle yi balaa ñuy wàll ñi leen seen jegeñaale wala seeni njaboot. ministère de la santé et de l'action sociale muy leen di sant di leen gërëm wasalaam